dégg ci penc mi mu bari yu ci xew yoo xam ne donte dogalu suñ borom am na ci ñenn ñi waaye am na ci ñoo xam ne du dogalu suñ borom tomb bi mooy lan mooy jafe-jafe am doom mooy jigéen ju ne mënta am doom bu dee ci penc mi nag ci réew mi Sénégal daanaka 90 pour cent dañ koo gàcc ci kaw jigéen ñi gaa am na jigéen ñoo xam ni am nañ jafe-jafe am doom waaye dañuy waxtaan ci jafe-jafe am doom lu koy waral ak ni muy gaaree góor ak ni muy gaaree jigéen suñu moom nag waxoon na ci alxuraan ni ñenn ñi man maa leen may ay doom ñenn ñi dama leen jox doom yu góor yu jigéen ñenn ñi ma jox leen góor kese ñenn ñi ma jox leen jigéen kese ñenn ñi du ma leen jox dara dama leen di xañ ñooñu nag buñ ko dee wax. mooy nit ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñu juddu te judduwaalewul butitu njurukaay ñooñu am nañ jafe-jafe am doom ak ñi nga xam dañoo am feebar seen butitu njurukaay ñu wekki ko loolu jafe-jafe la ci ñooñu mënuñoo am doom naturellement jigéen ji nga xam ne lu ci bëri amul butitu njurukaay ñooñu duñ gis règle am na jigéen ñoo xam ne duñ gis règle automatiquement dañoo am jafe-jafe gis règle loolu lu ci ëpp saa bu amee rek su weccoo 16 ans jàpp 17 ans toog nga gisoo règle teel dem hôpital nga gëstu lan moo la téye gis sa règle bu dee nag koo xam da nga am jafe-jafe ci wàllu butitu njurukaay yàlla dogal judduwaale woo ko loolu jafe-jafe dootoo gis am dootoo gis règle bi ci desaat mënoo am doom am na ci penc mi bi ci desaat li wér te wér jafe-jafe am doom yi ni jàmbat ci penc mi yëpp li ci ëpp ay jafe-jafe la ay tawat la yoo xam ne benn ku góor ki la gaar wa ilaa mu gaar ku jigéen ki jigéen ñi nag am nañ ci responsabilité bu rëy responsabilité bi mooy jigéen moom pour mille sens pour mën a sëy normal am doom te amul benn feebar mooy bu amee vingt ans wala dix neuf ans wala dix huit ans saa bu ci amee borom kër fii ak muy am vingt cinq ans jàpp trente ans mën naa sëy normal te du am jafe-jafe am doom ndax âge dafa am solo da gis xale bu jigéen bu toll ci war a dem sëy naan la du ma damay jàng am ba am samay damay jàng ba teral damay jàng am sama entreprise bopp gaa mën ngaa jàng am sa am sa këri bopp waaye est-ce que da am bànneex ci wàllu sëy bay am doom benn indi nga ay jafe-jafe jafe-jafe bi njëkk mooy da am caractère boo xam kenn dootu la ñemeeti caractère bi mooy jigéen ju fi xasa am kër am oto góor ñu ba dañ lay wan gannaaw duñ la sax ñemee labat ba lay takk wax ma laaj ba ngay sëy bay am doom ndax parce que caractère bi nga xasa bi xasa marqué wu sa kanam moo fi am bëri na fi jigéen ñoo xam ne wala ak ñoo bëgg jëkk waaye lii problème mooy mënuñoo dem ci génn góor ni kaay takk ma waaye góor ñi ragal naa leen li ko waral mooy dangaa toll ci âge sëy ne man du ma sëy damay teral sama yaay waaye damay fexe am sama entreprise bopp damay am sama kër gaa baax na lu baax la waaye jàppal ne am na loo xam ne am nga entreprise waaye am na lu la raw loo xam ne mënu too ko dabatu dabatu mooy dootoo sëyit normal pour mën a jigéen boo xam ne am nga 35 ans jàpp 36 ans bu ci sëyee moom gaa mën ngaa am doom waaye risque yu bëri da cee nekk ndax da nga commencé di âgé bi ci desaat mooy jigéen yàlla daf ko mooñee noo xam ne mooñ bu doy waar la mooy jigéen si jur day judduwaale nen yi nga xam ne mooy tax maanaam doon nen yi koy judduwaale nen yooyu nag waxtu booy gis règle nen yi dañuy juddu boo gisee jàppal ni mooy waxtu ovulation lañ koy wax jàppal ni jamono jooju sa nen yaa ngi juddu pour nga mën cee sëy pour maanaam doom loolu nag dafa am jafe-jafe ci ñenn ci jigéen ñi. jafé jafé am doom nak yaat na ci mi lool da dana koy am amna na wax prostate prostate ciir la ci cëri goor mom nak bokk na ci yi nga xamné bu ko goor amé mën na ko jurool jafé jafé am doom prostate bu ko amé day jafé jafé tour ndox normal wala buy sey ak soxnaam wala njaañi wara genn du genn day delu dem ci rakol bi nga xam fa lay touré ndox kon déjà ki am am jafé jafé am doom jafe-jafe am doom day topp famille ku góor di topp famille ku jigéen ndax day gis famille boo xam ñoom ñëpp kenn dañuy am soxla normal waaye dañuy am jafe-jafe am doom loolu boo ko fe foo ko fekk rek feebar la boo xam da leen topp seen wàllu yaram seen biir deret jëla dugg jaxasoo ñoom ba tax pour def traitement ba mu wér day jafe ñaareel tomb bi mooy fii boo nee jafe-jafe am doom rek jigéen ki moo war a dem hôpital dem faju ji te loolu it ñu bëri ñu ko teg ci pénc mi moro ñu bari dañuy jaawale di sey di génne ay walax ñaan ak mëna am doom ndax ñaare lu ben di sey di daan di génn ay walax ñaan ak mëna a am quantité de mëna jur ay doom loolu it jafe-jafe la am ben fer bu wax varicocèle momi day dal goor sidid la bo fu ñaari way yalla yi nekk ci suuf bokku na ci li togg walax ñaan yi pour ñu mëna normal pour ñu mën a normal pour nga mën a sëy pour mën a am doom normal moo tax dangay gis góor ñoo xam ne seen wallax njaan yi fa ne juddoo fa la ñuy deewee léegi koo xam ne say wallax njaan bi nga juddoo di sëy ak ku jigéen ki fekk nañu deewu yàgg nga yow mën nga am doom da ngay wax lu amul léegi nag doo ko si doo wax looy wax mooy ku góor ku jigéen ki am jafe-jafe am doom te li ñuy jaawale mooy góor day taxaw ci jafe am doom comme ni jigéen di taxawee. bul jàpp ne sëy naag sama soxna si am naa naag moom doom kon kii moom problème am doom kon damaa war a dem takki keneen déedéet diggante boobu mën nga fay am prostate wala varicocèle mën nga ko fee am wa ilaa jafe fii sa fii togg sa wàllax njaan yi pour ñu mën normal foofu am jafe-jafe loolu it mën na la gaar ba teelaa am doom kon yow dèjà sax jafe-jafe am doom ku góor ki moo ko am bi ci desaat jafe-jafe am doom bi nga xam ne moom ci penc mi fii ñëpp dañ koy surtout ku jigéen ki ku jigéen kee man tam da ngaa jaasir eh, bépp jigéen nag pour nga mën a am doom wala góor pour nga mën a am soxna sa soxna seen pour ngeen am doom condition yi moom faw mat li ci njëkk mooy faw nga nekk ak soxna si mooy soxna si day nekk ci kër gi nga nekk mu nekk fi ngeen jotee trois fois par semaine bi loolu bokk na ci li la mën a dimbali pour nga am doom loolu mooy leer. di 3 fois par semaine ngeen di jokkoo nga def ko atum mam yalla soko ko at nak booba jëlut um booba ngeen dogo dem xol ne da ngeen am jafé jafé am do kon ben la ci point yi moy bu nit ki sey sey du ciagne nak lu ci gëna a bëri ñu koy jàmbat mooy modou moodu moodu yi xam sa jëkkër bu ñëwee 3 mois la fi def wala 1 mois la fi dem dem bala fi koku pour nga jël um day jafé ndax lu koy waral moy amul temps pour ngeen mëna joko ci jamono ji nga wara mëna jël ëmb loolu lu mat di bàyyi xel la kon saa bu bëggee ne sa jabar am na jafe-jafe am doom mooy da ngay dëkk ak moom di sëy ak moom atu maam yàlla ngeen di sëy di dem ak dikk ngay jaxasoo ak moom trois fois par semaine nga def ko at ñu ne kii amul doom waa dañuy kii defal am jafe-jafe am bu ko defee nag ngeen jël seen matuwaay yow ak ku góor ak ku jigéen ngeen jël seen matuwaay dem hôpital bu dee góor moom boo dem hôpital leen lañ leen jikko def bu am nga jafe-jafe am doom say wallax njaan lañuy ñuy xool wallax njaan bokk na ci yi am solo ci wàllu sëy pour nit ki mën a jël am loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel mooy fii yaa ngi am jafe-jafe wala lax njaan jàppal ni am nga jafe-jafe am doom mënoo am doom loolu day dal ku góor bi ci desaat jigéen ñi am jafe-jafe am doom ñoo ko teg seen bopp infection moom bokk na ci yi gën a mën a indil jigéen jafe-jafe pour mën a jël ëmb infection te loolu ñu bëri duñ ci bàyyi xel jigéen ñi ah, léegi nag su fekkee góor gi dafa am prostate prostate cër la ci cër bi nekk cëri doomu aadama yi prostate bu day am benn feebar bu nekk ci biir nag feebar boobu nag mooy téye jafe-jafe pour góor ki mën a saw normal wala mën a mën a sëy normal pour mën a am doom varicocèle varicocèle mooy benn siddit la siddit yi doomu aadama bi ci góor ki dafa am quantité boobu su ko weesoo pour góor ki am doom day am jafe-jafe ndax day tax ni ñu war toggee wala njaan dëgg-dëgg normal day am jafe-jafe léegi nag période ovulation mooy jigéen ji fan période la war a toll pour mën a jël ëmb léegi bi ci toppaat mooy waxoon nañu âge yi mooy âge yi ni su ko jigéen yoree jafe-jafe la pour mën a jël ëmb mooy jigéen ju am 35 ans doogu dugg ci néegu sëy nga toog 6 mois 7 mois jëloo ëmb bul toog di xaar at yow moom parce que da nga am retard retard bi nga am mooy dangay yéex a dugg ci sëy da ngaa yéex dugg ci sëy kon waroo toog di xaar at naan damay sëy at doog a xool ba xam am naa dinaa am jafe-jafe doom kon yow boo toogee 6 mois jàpp 7 mois jëla ëmb demaleen hôpital nga xool yow ak góor ki ngeen xool lan moo leen téye am doom léegi nag am na lu ñuy wax loolu day nekk ci ku jigéen ki.